la nuit des temps bokkuñu ci benn élection te kenn duñu gestu ñun nag ñuy biralaat wax ci dañu ne ñun ba ñuy dugg yeewi askan wi duñ taxoon jóg ba tey ñu ngi ci wante dama ne lii di suñu candidature lu ñu gëm mooy dinañ def suñu kenn kàttan ba mën a bokk ci élection yi te waxtaan su ci noree nekk stratégie tamit dinañ ko jël en considération mais dëgëlaat wax ci nous comptons aller à ce dialogue parce que coalition Yewwi Askan Wi mi ngi commencé di bëgg a ñoroo leneen ñun dugg ñu ci mouvement de soutien ñun dugg ñu ci groupement de soutien dugg ñu tamit ci bureau de de de de de de consultation pour qui que ce soit na wax ci leer moo tax mbokk yi dama ne am na ay ñëpp man du leen tontu yenn Sénégalais xam ngeen ma. 2005 ba tey man maa ngi ci politique 18 ans maa ngi ci politique kenn musuma dégg ci ay caaxaan man labey ñoo ma jur labey ñoo ma yar man kenn musuma xamee ci ay caaxaan ba nit di dem ba taxaw jàkkaarloo ak askanu Sénégal di wax ay waxu ay enregistrement di wax ay waxu ay théâtre que théâtre yi daanaka man dama ci amoon rôle bu may joué fii kenn rek mooy théâtre kenn rek mooy théâtre di jëm a manipuler askan wi di jëm a manipuler coalition Yewwi Askan Wi di jëm a nelawal nit ñi di jëm a lëndëmal xel yi ndax la ndax bëgg-bëggam dama ne ah, mbokk yi man kilifa la man bàmmeelu biir dañ ma yar ci bàmmeelu biir man parti socialiste laa laa laa yaroo parti socialiste laa bàyyeekoo am na lu ngeen xam ne du suma cër man mënuma ànd ak nit di ko xeexal man damay taxaw ne kii mooy suma candidat su ko